yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf Tamsir Biram Ndiaye ñu naan ko Tamsir Jupiter Ndiaye ay mbiram la mboolem yéene kaay ñu xëyandool xëya tay waaye man fi laa ko ñukk na yàq bu naqari teg ko fi muy tegee nekk teg ma teg ci xooli ci xët mu njëkk anki yéene kaay ak ñi journal bi xëy tuddee waa Benno Bloc Sénégal ubbil journal bi géopolitique bi li ci am jamono ji moo di la Matar Seck bu mboor a doon wax naan ku ñu logal nga loggu log ne li ñu jël parti politique yi ci réew mi dugal ci gouvernement bi tax na lépp ne tekk ñi waroon a wax ak Macky bu jàddee aw yoon bu deful lu jaaduwul ñoom ñëpp jamono ji kenn du ca wax ndax ñoo nga ca biir ka ca wax di Mame Less la mu ca wax moo di Macky Sall ko nar a xeex ëllëg moo di ñu nekk ci coalition bi di njiitu réew mi réew mi quotidien nañu ñaxtu yemul foofe rek ndax doomi Sénégal yi nekk ci bitim réew ñu naan leen diaspora fépp nañu ndax dañoo gis seen bopp la gis moo di Macky Sall bu doonee président de la République bu Sénégal ñoom ca lañu te bu fi nekk ni dañoo gis ne gisuñu ngóor delloo naar bi xorom si li mel ne kaane nag bi nañu moo di la def ke woon jigéeni APR ya nekk ci Atlanta ak ca États-Unis ay nit yu jege lool Marième Faye yi nekk ci réew mi ak xalaat ba ca Macky Sall jibaloon di ñu wàññi leen Walf Fadjri xëy dem seeti borom parti politique yi ci réew mi ngir xam seen xalaat ka njëkk a moo di Matar Gueye bu RDS tonton moo di réew mi mel ni Sénégal nga xam ne li fi yewoo ci doomi aadama bu bare ba bari weesul fukki millions yi doomi aadama ak ñett am ñaari téeméeri parti politique loolee dafa ëpp jegaan seen bu URD moom mbir mi ay caaxaan la ko jàppe ba tax muy sàkku jëwrin ji fi amee woon collectivité locale yi moom ma nga ñu xëy amee ci direct info wax na fa ba wax fa lu mu musta wax ndax Alioune Sow ki doon tey président de la république bu Sénégal di Macky moom Alioune moo ko daan wutali ay nit nit ki ñu toftaloon ci njiital fédération sénégalaise bu football di Louis Lamotte observateur nañu tekki na ndombal tànkam Louis Lamotte premier vice président bu fédération sénégalaise bu football bàyyi na ci populaire Louis footballu Sénégal bu ñu doonoon ay fonctionnaire kon état bi wax na ci ñoom bu yàgg libération nañu Louis Lamotte wane na yoon wi Walfadjri moom jàppe Louis ak li mu def nekk ci gaal gaal gay suux nga far cëppeelo ñu ne cëpp ci arène bi ànd ak sunu làmb xooli li xew ci làmb ji ubbil yéenekaay bi Boy Nar ma fàqe woon ci écrit Fass le journal bi xëy dajal ca Casamance Boy Nar ni leen réccu ma lu ma jugee woon ca Fass Gris do ma fa nekk di balballu ak di fëggub dënnam naan may tigre de Fass Boy ne Gris Bordeaux gënumaa doon doomi Fass te li ci ñu bari xamul moo di Gris Bordeaux li muy tere Balla Diouf loolee la mës a nekkee Fass